fu Sénégal yegg tey jigéen ñi ñoo ko fa yóbbu bu Sénégal avancé dafa fekk jigéen ñi ñoo taxaw te loolu démb la ba tey historiens yi wax nañ ko depuis talaatay ndeer ba ci tey ji jigéenu Sénégal mosuñ dellu ginnaaw moo tax ma ni man xam naa li jigéen def pour ñun nit ku ne mën nga sedd li sa yaay def ci yow waaye yokk naa si ne sedd naa it fi ma sama soxna féete te loolu góor bu ne war na ko mën a wax yokk naa ci ne jigéen ñi nga xam ne yàlla boole na ma ak ñoom mu yéen ñii xam naa seen taxawaay ak li ngeen def ci man ba ma nekk fii ma nekk tey kon jërë ngeen Merci beaucoup. yaram daw na ni ko Aliou Mansour Mbaye di waxee yaram daw na